والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بوك جولي دي غناو سانت يالا جولي تي يونتي صلى الله عليه وسلم نونغي دينك سونو بوب دي لين دينك راغال بروم تبارك وتعالى تي توپ نيغلمي باي تريمي بوك جولي دي القران دا فا واتش غير جوبال نيت ني اك غيندي لين اك وون لين يونو تخه موتاخ ñu bëgg a def ay settantal ci jenn laaya ju nekk ci alquran muy laaya ju màgg muy laaya joo xam ne borom tabaraka wa taala muy laaya joo xam ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na moo gën a màgg ci alquran ci laaya yi te mooy ayatul kursi yi li tax nag bokk na ci li tax ñu bëgg a jël توحيد ويت البرم تبارك وتعالى دفا ام اسكورل مbolo مو خامني دانيو جوك دي ووتي او اك يالا سينو كليفا دم باي ووتي او يالا دي واخني يالا في لا فك اسمانك سوف يالا نيت لا يالا امنا سنت ñi ko topp di wax ne li nga sant mom la yalla sant dem boy wote wo nguur di wote wo yalla di woné ne mom moy yalla mbolo momé ñi ngi ci réew mi ak fenen képp ko xamné ne ngi suivre internet bi Yangi ya ngi ci dégg lu mel noonu ku mel non nak ko xamné xamut bu dajeeg mom mën nako keuf yu balé ko kon faawu nak nu xam kan moy borom tabaaraku taala borom tabaaraku taala day wax ci laaya ji nga xamne mo gëna mag ci alquran tafsir bi nga xamne mom moom lañ jël ñu koy toxale ci tafsir ibn kathir rahimahullah mi tafsir bu am solo bo xamne kep ku yër tafsir war na koo bàyyi xel bu baax برومي تبارك وتعالى نينا الله يلا لا إله إلا هو أم بن بور أم كن كوي جام جامو غدي جارين نك جامو غدي لوري كودو برومي تبارك وتعالى موم ريك موم تا جامو موم ريك موي بور موم ريك مو ييو جامو képp koo xam ne yaa ngi koy jaamu te du yàlla jaamu ko jaamu caaxaan la neen te sawara la lay jëmee jaamu yàlla képp moo lay musal ci sawara tàbbal la aljana alxay mooy boroom dund gu mat ga ki nga xam ne dundam tàmbaliwul fenn yemul fenn doomu aadama dundam am na fu mu tàmbalee am na fu mu yem waaye yàlla mooy ki nga xam ne day dund ba faw dundam yemut fenn kooku nag mooy boroom dund bi nga xam ne moo mat sëkk dundam mànkewul wa tawakkal ala al hayy alladi laa ci yàlla bi nga xam ne day dund mooy ji te du faatu kon bul wéeru ci koo xam ne day faatu alqayyum ki nga xam ne mooy taxaw mbirum mbindeef fii mooy doxal seeni mbir mooy taxawu boppam te amut كن آجو من برم تبارك وتعالى تي نيب كو آجو كوكو موي يالا الحي القيوم بوكو نتي اك ماتا من برم تبارك وتعالى موي كو خامني دو نلو دو گمنت لا تاخذه سنه ولا نوم ني جانغ لوخا خامنن برم تبارك وتعالى بو واخون لا تاخذه سنه ونوم دنا جوب دي waye lan moo tax mu bantu allah nga la taaxuduhu sinatun wala nawm muy waxin wu kon ki nga xamne mom be wote wo ak yàlla neena yàlla la te bo duggé ci négam amna sal de bain bu soxla lek lek di tak soxna di ami dom ndax koku yàlla la dedet neena du nelaw du gémmentu lahu ma fi samaawaati wa ma fi l ard mboolem li nekk ci biir asamaan juróom-ñaar ak suuf juróom-ñaar moom moo ko moom mboolem loo fi gis muy asamaan muy suuf ak li nekk ci biir ak li nekk seen diggante moom borom bi tabaraka wa taala moom moo ko moom allahu akbar melokaan yii ku ko melowoo kooku rek moo yeyoo jaamu من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه برامي تبارك وتعالى أم كن أم فت من رم فمام لولول دلا جوخ ndigal mom borom tabarak wa taala mom moy joxe ndigal ram te ki ram faw mu am ngeureumal borom tabarak wa taala te kimi ram na doon ku faatu wala tawhid wéetal borom tabarak wa taala kon ki faatu wala ak bokkaale yalla koke kenn du ko ram كيفاتو والي توحيد ويبالي نبكر كوكي بروم تبارك وتعالى منا جوخ ديغل نرمو ملايكة دينا نرمو يوننتي دينا نرمو غاي باهي دينا نرمو تي خم خم جويات من بروم تبارك وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يالله خمنا li nekk ci kanamu doomu aadama yi ak li nekk ci seen gannaaw maanaam peeg na leen xam na seeni lépp amul dara lu ko ump ci mbindeefam yi moo xam asamaan si la moo xam suuf si la ak ku mën a doon la gën a xóot ak lum tuuti tuuti tuuti borom tabaaraka wa taala xam na ko nit dangay xam dara waaye am na loo ci umpale waaye yàlla umpale wu dara ci lim xam ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء خم خمم جويات من برم تبارك وتعالى لم يخمل نيني توتي لا يدون من برم تبارك وتعالى لب لدوم آدم يخمتي خم خمم توتي لا يدون توتي وما أوتيت من العلم إلا قليلا أمن لن لني خمتي خم خمم لدو لكوتي نيخ موم يالله di doomu aadama umpale ci mbirum yàlla moo ëpp fuuf lam ca xam moo tax ibnu kasir di wax ne laaya ji mën naa jamtalu yàlla ci bopp melokaanam yi moom rek moo ko xam xanaa lam lam xamal mi mbindeefam yi waaye moom rek moo xam boppam wasia kursiyuhu samawati wal ard kursi nee na mooy ak toogu mooy chaise bi ngay toog waaye lam jubloo wax fii ndax kursi yi am nañu ko firee xam-xamam moom yàlla am nañu ko firee nguuram am nañu ko firee kàttanam yooyu yépp nag mën naa doon benn maana yàlla xam-xamam kàttanam nguuram moo ëpp asamaan juróom-ñaar ak suufu juróom-ñaar wala yauduhu xifzuhuma wattu gi muy wattu asamaan ak suuf ak kursi lu yomb la ci moom lu yomba yomb la ci moom moom borom bi tabaraka wa taala wa mooy ki ki nga xam ne moo kawe mooy ki nga xam ne moo not ñépp féete kaw ñépp gën a màgg ñépp kii mooy boromi bi tabaraka wa taala melokaanam yii moom rek moo ko jagoo du keneen kon koo xam ne dafa ñëw di woote woo ak yàlla di woote woo ne moom ak yàlla la wala yàlla nit la kookee ne ko demal sa yoon li ngay wax amut dara amu ci ànd ak ay mbooloo topp ci gannaawam di ko dëggal ci li muy wax mi ngi ci biir réew mi di Sénégal ak yeneen réew kon nag ñi nga xam ne ñooy woote woo yàlla ragal seen boroom xam ne rek mooy yàlla moom rek moo mën képp koo xam ne nee na moom mooy yàlla wedd na alquran donte sax mi ngi wax mi ngi julli ko woor ndax yàlla moo wax ne man maa moom bindee fii asamaan ak suuf li fi nekk lépp man maa ko moom kon boo waxee loolu yow wedd nga borom tabaaraka wa taala lii mooy tawxiid tawxiit nag mbokk jullit yi mooy li ngay jaamoo yàlla sa jaamu yàlla ngay def yàlla dong nga koy jagleel yàlla dong ngay jaamu nga saxal ci sa xol ne mboolem binde fi yàlla dong moo ko moom muy asamaan muy suuf ak yeneen fi yoo xamut borom bi tabaraka wa taala moom moo ko moom amul keneen ku ko ci fekk si mooy tawxidul uluhiya ak tawxidul rububiya wéetal borom bi tabaraka wa taala ci melokaanam yi ak turam yi tawxid nag mooy li nga xam ne bu ko nit ki faatuwaale bu duggee sawara sax lu mu yàgg-yàgg day génn waaye amul kenn kuy faatuwaale ak bokkaale di génn sawara kooku mooy kii sax ci biir sawara tawxiid mooy li nga xam ne bu ko nit ki indaalee bu indaalee ay bakkaar yu toll ne suuf waaye gis ne ne bakkaar yi amut bokkaale borom bi tabaaraka wa mën na koo jëggal loolu moo sax ci ab xadiis xadiisu anas nee na xadis ba xadisul qudsi la nee na yow doomu aadama boo ñëwoon ci man indaale lu toll ni suuf si ci ay ñaawteef waaye ñaawteef yi amul amul bokkaale naa la jëggal lu toll noonu kon tawxiid a ngoog tawxiid bu saxee ci xolub doomu aadama musiba ya ak metit yi day mën a da koy mën a muñ tawxiid day dëgëral nit ki tawxiid day tax nit ki yàlla ubbil ko buntu ndimbal ak njëggal ak yërmande tawxiid day tax borom bi tabaaraka wa taala defal nit ki kóolute mu am sécurité kenn du ko mën a lor alladina amanu walam yalbisu imaanahum bi zulm ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla te jaxasewuñ seen ngëm nga ak tooñ zulm li muy firi fii mooy bokkaale سبحانه تبارك وتعالى نينا أولئك لهم الأمن وهم مهتدون بكال يا لتي بوبم نيكي بوكو خولي تي بوبم ورنا خامني بكال باخو تنيخو نخ سا دوم نيغا خامني يا كو يورال سا بوب يركو جانغال كو جانغال كو القران موي جانغ با ام ديبلوم يي غنا كاوي دم دي ليغي دي ام خالص موي دم ديفال كنين كوكي خام نغي دانكو مري يالا ميغا خامني مولا بيند موم لا تي بيم لاي بيند كين فكي ووكو nga ñëw ci adina di jaamu keneen ku dul moom xam nga ne kookee du la ko jëgal mukk inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Mm-hmm. ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار